salaamaaleykum bien bu bienvenue dans votre émission Focus Star comme ni ma koy faral di defee saa su ne dama fiy dalal ay naanaan ki ma fiy dalal nag macha allah bi mu duggee ci aar bi mën nañu wax yàggul yàgg na mais nag teg na li nga xam ne moom mooy empreinte. ki ñu invité tey mu ngi tudd Ousmane Bongo Ousmane ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci Kawtef Sénégal. waaw maa ngi lay fay di la ziar ah di nuyu képp kuy bëggee Ousmane Bongo di tamit yëpp. waaw di leen ziar wér a wér a ñi nga xam ne bëgg nañ xam réellement kan mooy Ousmane Bongo parce que xam nañ ni yaa ngi ci taas bi yaa ngi ci Bongo mais pour xam réellement yow yaay kan tey bu ñu la waxee kan mooy Ousmane Bongo lan nga ñuy wax. waaw Ousmane Bongo moom xale la rek bu nekk ci yoonam di liggéey waaw gëm lu muy gëm xam boppam tamit waaw am fulam fayda dox gis daal lu ñàkk fayda waaw. Euh, ngay doomu géej waaye su ma juumulee. waaw may doomu géej waaye di doomu HLM di doomu ñaari tali di doomu NGB man fii laa juddoo ñaari tali mais dama demoon jàngi géej waaye ba ma bàyyee nag laa ñibbi si HLM. Ah. depuis kañ nga dugg ci li nga xam ne moom mooy aar bi réellement. aar bi ba ma bàyyee jàng 2017 laa ci dugg doon tëgg sabar après may ànd ak Ousseyn Mbaye moom mu dugal ci bongo bi ñu ciy dugg est-ce que amoon nga ay jafe-jafe say côté parents ak yooyu. waaw man mii daanaka suma début carrière yëpp ay jafe-jafe la ndax sama famille bëgguñu woon may def aar ku si sama yaay maa ngi koy ah moom xaw na maa rey door na ma def na ma lu ne <laughs> dëgg yàlla mais sant yàlla rek. donc début bi métti na waaw métti woon na trop franchement. parce que boo nekkee tamit ci famille boo xamante nii kenn nekku si artiste xam loolu day métti waaw. mais nice. Euh, su ma juumulee waa koñ bi la gars yi gën a xam ak génne nga aussi li nga xam ne moom mooy jongama hmm. mais waa koñ bi indi woon na fi déjà coow. Hmm. ku ne naan maa ko moom nga naan maa ko moom <laughs> Samba Diarra Mbaye naan maa moom. te bu ñu xoolee vidéo yi Samba Diarra lañu gisoon di Diop ñëw seesi ko. Ah. mu woy waa koñ bi kaay leen xool Sidi ñëw na. après ñu ah. jékki-jékki gis coow bi bëri xëccoo bi. Ah. waaw donc nan la woon exactement. bon ñun instant sax ñun ñu ngi si leneen yàlla. Mm-hmm. waaw kañ moom kenn ku yàlla yàlla dafa àtte. Mm-hmm. xam nga yéen vidéo ngeen njëkk a gis mais kenn moo gën a siwle mm-hmm. maa gën a siwle nit ñi sama bos la ñuy déglu sama bos tamit la waa équipe nationale demee fu ne moom la politiciens si campagne yi TikTok bi tamit sama bos amul benn vidéo amul benn amul benn artiste bu def son bu ëpp vidéo TikTok sama son amul. Mm-hmm. ndax mu ngi toll ci cent soixante-dix mil cas. bon sant yàlla la quoi parce que yàlla tey ji dëgg rek lay àtte yéen vidéo ngeen njëkk gis même boo leen duggee sama TikTok ma wan leen vidéo boo xamante nii def na sept sept mois avant moom vidéo loolu yàgg na ndax ñun si xew yi la ñuy nekk di di inspiré comprendre nga te ñun tàmm buñ buñ buñ defee benn affaire dañ koy dugal si si ay kii comprendre ni nga ko protéger si statut yi te ñun artiste ñun ñëpp dañuy yi moom si statut la ko gisee. sàcc ko bu ko sàccee nag njëkk ma dugal moom du génne na teaser moom bu muy génne teaser man xalaatuma sax man lii dinaa def ndax bàyyi naa ko ak moom ma ne lii day yomb ma def nga xam ne roy tamit du niroo pire yàlla fa ate ndax moom muy dugal def deux semaine man ma génnee même pas vingt quatre heures mu explosé kon tamit yàlla day àtte de c'est ça donc bu ñu jógee ci loolu dañuy gis ne aussi sa clip bi nga xam ne ne moom nga tuddee waa koñ bi. moom la mm. télé di gën a teg. Mm. boo xoolee jongama da ko mm. da ko clipé bu sexy trop. waaw que yaakaaroon ne loolu moo tax télé yi aussi teguñu ko. lan moo tax tamit nga choisir ko def ko clip boobu noonu. Euh, son boobu man lu ma si jublu woon nekkul pour télé Sénégal teg ko. waaw parce que dama si jublu woon pour un niveau international te yaakaar naa même bu ko télé Sénégal tegul. ñu ngi génne même bu nekkul international ñu ngi génn national nax Trace Africa Ora ak yeneen ak yeneen ñu koy teg ah. bi te dëgg la seen Sénégal ndax fi nga dëkk mais am na yenn yoo xamante nii yemul Sénégal kase il faut ñu si bàyyi xel lii ma def ko am naa lu bëri lu mu war a génnee mais lu tax ma génn lii maa xam waaw parce que si waa ko bi laa jóge bëgg ñu te su may génnewaat beneen essai ngay gisaat lu bokkut ak lii ba pare clip bi dëgg la woy bi jongama nga ko tuddee. Mm. mais ci biir sax wax nga waxu jongama mais aussi def nga ci ego trip. di mm. wane ne yow yaa fi ne ak yooyu. nice mais loolu naa ci loolu. fi ne su ma fi nekkul kan fi ne ah, bis bu nekk da cee xew at bu nekk la cee am. Mm. ku lekk yëfu jàmbur sa fi toog te boo bañ ko la ko da ngay aw beneen yoon. dinañ ci ñëw ci kanam balaa loolu dama bëgg nga wax rek sa relation déjà ak première dame ndax nag instant bi foo tuñu ñu ne Ousmane mooy xale bi nga xam ne moo hmm. ah, <laughs> moom dëgg yàlla sama relation ak moom première dame maa koy nuyu de passage hmm. ah yaay Amadou yaay Ousmane Bongo dëgg yàlla kooku moom nekkul c'est la première fois ma koy fecc loo te man moom presque def nañ trois ans trois ans lu xew man lay woo ak famille ah, ay sëram ay magam seen famille lu ci xew xewle ma la ñu woo kon loolu sant yàlla la baax waaw di wax nag kontaan naa ci yow woo nañ ma jot naa ko nice yàlla si jàmm yàgg jaajëf. <laughs> Euh, eh. bëggoon naa xam aussi lan moo la utaleex yeneen bongomaan yi ndax du yow rek yaa fi bongomaan bëri ngeen mm-hmm. déjà. Mm-hmm. lan mooy seen différence. waaw différence bi bon dafa bokkul quoi parce que man yemuma ci boobu mooy kase comprendre nga mm-hmm. yemuma ci boobu mooy kase te tamit chaque jour moo ko ma leen leen vision yi duñu benn man fi ma teg ak sama bët ak ñoom fi ma teg seen bët du benn mm-hmm. comportement yi du benn image yi du benn plan de carrière aussi du benn voilà man même bu dul dara dama nekk ci label moom matuma sama bopp maa ngi maa ngi nekk ci label Subatel musique du nuyu passage euh, yu ñu génne gis nañ ñu invité ñoom ñëpp ci plateau 2STV. Hmm. ñi di woy seen bopp Bongo Mane wala Tass Kouthie ñu daje fa. Hmm. mais ki nga xam ne nag Ousmane teewu fa donc lan moo tax gisuñu la dañ la invité wu wala yow yaa amul woon envie dem. non invité woon nañ ma sax mais dama dama jàppoon rek. waaw ndax jour boobu noonu tamit dama bari woon ay programme maa ngi pare ay trois heures ndax bisu si plateau bi sax ñu ngi si seen déggante mm-hmm. ma ne ko du ma la promettre dara waaye su ma teelee pare rek incha allah dinaa ñëw mm-hmm. waaw mais am na ci ci ñu ñu dégganteel ñu wax ñu ni plateau bi naroon nga dem mais bi nga gisee ne affaire yi dafa am ay affaire yu sa ndax te invité nañ si yu bëri yow nga ne xëjoo ci loolu doo dem bon confrontation artiste bu nekk ñet bëgg nga bëgg nga fa dem mm-hmm. mais booy confronté dangay ngay confronté ñi nga xamante ne ngeen a tolloon niveau wala nga xamante ne tamit bon parce que man yaakaar naa ne tamit man jamono jii tal naa lu toog ci ay télé di làkk sa ak samay morom góor mm-hmm. comprendre nga. te waaw man ñooñu concerné man. sama ménage la gère bien sûr mm-hmm. comprendre tal naa tamit di toog si ay télé di dàggasante góor da ngay di góor mais toog naan ay liyee ki day nooyee ki day dëgër boo nooyee nga dem ànd ak ñu nooy boo dëgëree nga dem ànd ak ñu dëgër góor na te na jigéen ci jigéen ña isa Ousmane wax bu ñu xoolee aussi gis nañu yéen Bongo Mali taxul ñi siiw taxul leen yenn bëri ah. donc lan moo tax déggoo mënul am si seen biir waaw. Euh, ñàkk ba ko fësal aussi. ñàkk ñàkk ba ñu déggoonte bi mhm. doo dégg ci ñoom la. Mhm. man Ousmane Bongo euh, du ma du ma ñoom sax quoi waxee ma duma ak ñoom kon du ma seen morom wala dara. Mhm. man fi ma opté ak ñoom fi opté du benn comprendre nga. du ñàkk nag dinañ defante ak man mais bu ñu bëggee defante ak man dañ may topp sama niveau ñu mën a bokk plan de carrière mais nii nii nii nii nii mënu ma defante ak ñoom. ñoom ci xew yi lañ waaw même du xaay sax même bu sax man sama niveau man fu man fu ma teg sama bët du fii hmm. du ay toog sa ay xew ay mariage ba kañ xar da ngay weesu mboote tamit amul amul amul mariage bu ma tëggul amul xew bu ma tëggul te ba tey maa ngi gën a tëgg hmm. mais nit am nga fu ngay toll tey jii nit ñi dañ lay gën a jox sa gëdd dañ lay gën a jox cër mariage yi dañ lay jox say cachet yu baax ak anniversaire ak yeneen ak yeneen man foofu laa teg sama bët mais pas toog ci non waaw di dàgg sante quoi ndax góor da ngay yëfu góor jigéen nga def yëfu jigéen. am na koo xam ne mën naa ko jàppee mën naa ne. Hmm. seen seen papa la ci milieu bi pas muy moo te dañ koy déggu ci muy wax tàcc yi si réew mi yëpp ay taasom la yow ban relation nga ki nga xam ne moom mooy moo caam yow. waaw moo bon maa ngi koy nuyu tamit de passage na kook suñu grand la te ku baax la te tamit bon. ñoom daal seen taasu ñoom seen taasu quoi mm. man taasu moom man damay kebetu. ah voilà xam nga da nga wax taasu day nooy. waaw góor moomul taasu. Mm. góor da ngay kebetu. daam seen man ko ñu de passage. ba ki dem rek mu ngi doon mu ngi doon joxe man passage boobu. Mm. ñoom dañuy taasu te jigéen moom moom taasu góor dangay ngay kebetu wala ngir rim dafa bëri façon quoi moo tax ñoom dañuy def mais comprendre comprendre nañu affaire yi bu baax a baax a baax. jigéen moom moom taasu. jigéen moom moom taasu góor moom moom kebet. donc voilà amee ah, li ngay taasu. mais waxuma Mor Thiam parce que moo Thiam man. waaw non Mor Thiam il faut Mor ñu génnee ko ci ci ci noonu mais gars yi ñoom. Mm. di toog si télé di def ay émission bi di kii. gisoo booy taas di def ay manière loolu di marketing di def ay manière loolu moo ko waral jigéen moo moom taasu. ndax jigéen ñi ngay tax di biiñ naan eh na comprendre nga. léegi ñoom nag dañoo réeree mbir dañoo jaawale taasu parce que jigéen mooy taasu jigéen muy taasu dafa war a nooy mu wàcc ñu mën a def seen feem def ay feem waa léegi ñoom nag doo sax comprendre loolu mu demee tamit quoi. bu ma bu leen benn conseil laa leen wax. Mm. tant euh, ñu ngi taasu kon ni ngi taasoo nii mm. duñ mu a jikk te di leen sosal lii la wala du lii leer laa la wax mm. góor da ngay def yëfu góor nga bàyyi taas bi di kebetu muy dëgër këj mm. mais pas toog si si gis-gis ñoom dañuy réeree mbir déjà am nga ni nga mel am nga image image boobu noonu sàmm ko nga xam noo ko gérer mais bu si yokku leneen téye ko di def yëfu góor. forom ñu naw la boobu di Papichou di wax yow bokkul nga ci natt bi. waaye yow doo dégg man seen lobby boobu noonu man dañ ma si génne ba mu set. taluma sax ay man ñooñ dama amul seen jot bay bokk seeni natt pour te dire. yoon ñoom ñu ngi fële maa ngi fee ëppale wu ma leen dara nag. Hmm. ëppale wu leen dara si aar amul lu ma leen ëppale. man Ousmane simple xale kese laa waaye man am naa droit man fi ma teg ak sama bët bokkul ak tegu moo ko si ñoom ñun waruma sa toog say interview di wax sax di tudd seen tur ndax su ma sañoon dañuy génn beneen page ndax ñooñu man ak ñoom duñ benn gis nga lu leen gis nga lu leen wax ak sama wax nañ ma ko waa kon du benn isa yow tey à part bëgg ngay def ak maanaam kébee bi comme ko waxee hmm. est-ce que am nga beneen métier wala beneen affaire boo xam ne da nga dóor waar. bien sûr pourquoi pas naa dul wax rek mais ñu ngi sant bu baax a baax. Hmm. Euh, dégg naa aussi. Uh-huh. yaa ngi jàppale Dame Sène ndax Dame bi mu génnee ñu bëri dañ ñëw comme yow ci ñoom nga bokk ñoom nga war a jàppale mais yow hmm. da dem dëgg li nga xam ne moom moom la Dame Sène di wax. ñu ne ñu ne so soli defoo affaire solidarité daal ak ñoom solidaire. waaw parce que xam nga ni tey jii. ñoom bu ñu too bu ñu toogee naan fii ku fi nooy ku fi xewle ñu nooy ñee la jàppale wala ku fi def soirée ñu nooy ñee la jàppale ne Taasu dafa war a nooy loolu waxuñu waxuñu Dame kase kese waxuñu waxuñu woon kese ñëpp lañu wax képp kuy def art képp kuy def art xam nga dañoo juum waaye nag kuy naan di làkkatu boo màndee rek feeñ dégg nga li ma laa wax mm. am na loo xamante ne mënul nëbbu sa si yow man am na loo xamante ne tey jii su ma ko meloon su ma doon ñëw fii sax di ko jaay changé sax balaa force dinaa def faay ni ngi mel bëgg nekk góor def góor fekk nekkul ci man day feeñ par force moo tax nañu maytu quoi c'est mm. mieux daam seen ba mu defee vidéo bi mm. man Ousmane Bongo maa ko njëkk a dugal TikTok sama compte mm. ñu xam ne Ousmane Bongo mii dugal na vidéo bi TikTok parce que ñoom lépp fu ñu ne ak man fu ma nekk bokkul man day dëgër këj dara fokkul sama bët te nit mënuma changer man nay dëgër këj affaire du sa ay takk jaaro du yooyu non ay takk jaaro yooyu yëpp fii lañ ko fekk te fii lañ koy bàyyi mais jaaro takk nga takk jaaro sañse ak nga nekk leneen ça fait diamétralement opposé bokkul affaire bi ci jikko la ak ci sentiment voilà mais tey dëgg la yow da def kebetu ñoom hmm. ñuy def kii mais lépp benn famille bi la mais tey boo déggee ñoom ñu leen di joxoñ baaraam di jiiñ euh, ñaari tur réellement boo toogee yow kese est du la dégg mooy di leen jiiñ ah, parce que da naan même bu nekkee sax def ma comme li ñuy def benn famille benn côté daf may métti ko parce que même bu dara sax ñoo bokk lu waaw mais fii moom soxna si ku fi xule ba ngiñ la góor jigéen loolu moo boobu noonu sax wallaay su ma ko tudd sax sama kara bopp sama kara bopp day taxaw kuñ fi xoole bañ bañ jiñ la ko boobu yow la am ni nga comporté woo yaa xam dëkkuñu dëkkaat nañu day neex nga dege fréquenté wu ma leen fréquenté wu ñu wu ma leen ligganti ma la sama aar laa gëm waaye man al man ba usman Bongo kenn du su ko bindal sax naan kii lii ak lii ak lii man sama bopp laa ligganti dañ fexee su lu ne yàlla dimbali leen si yu jëm ko dëgëral ndax ñoom man mënu leen liimal dara tey jamono ji xam ma la moo tax même su doon mett sax ñoom lu leen di jiiñ suma doon métti sax métteetuma ñoom dañoo toog ñoom ñoo war a defendre seen bopp toog gën a weer seen bopp kon je m'en nañ ko ligganti mm. voilà noonu la cas bi demee. Mm. Euh, dégg naa aussi da ngay waaj na dëgër nay dëgër këcc xaw ma ndax dëgg la wala du dëgg. pour nga son bi barki démb la waroon génn. Mm. mais comme la ma nekk ci label euh, xam naa dina génn lu yàggul dara. waaw ah. mm. na dëgër këcc ndax Pape Diouf Pape juuf dafa ne. góor gëmal li nga gëm. xamal li nga xam bul tiit te bul suuraale mooy li lay tàddeel def ko zéro góor yàlla da ngay gëm boppam waaye góor. daa war a dëgër ma ne góor daa war a dëgër maçon beeg menuisier beeg caméraman beeg bongo man beeg pourquoi pas dëgër góor na te góor na jigéen na te jigéen la non loolu fii lañ koy ngénte incha allah lan waaw samay projet bari na quoi hmm. ndax maa ngi préparé maa ngi maa ngi préparé album maa ngi préparé album ah maa ngi préparé nag sama anniversaire Sorano incha allah début décembre. waaw ñu ngi dox tamit ñu ngi waaj ay tournée internationale yi nga xamante ni tamit maa ngi ci war a ànd ak sama waa Subatel musique waaw yàlla baax na quoi. waaw Thiaw studio ak Omaro bi bilaay comme ni ngeen si amee rek man noonu laa ci amee. waaw parce que ñoom ñëpp Omaro ak Sidi ku ne xam na tamit. kafe suukar la ku ne da ngay soo suukar jox sa morom mu naan mm. amaana bu amee coow bon xaw ma nag nu mu demee franchement du ma fenn mm. mais yal na yàlla defal jàmm daal mm. incha allah ba ñu nekkaat si jàmm ak salaam incha allah bu fekkee am nañ coow. Ah, waaw mais man dama comprendre quoi. ok kon gis naa ne Umarou def sorti mm-hmm. xaw ma si dara wax dëgg yàlla. Ah. kontaan nañ déjà. waaw man maa leen gën a kontaan di bëgg ki nga xam ne moom mooy Didi Diaw Diop ndax moom moo mm. dox li bi ma yow. Mm, ba tey nga ñëw ñëw bi yéen ñaar aussi ngeen àdduna àdduna amul solo ñu ngi lay remercier a baax moom rendez-vous dama ko respecté moom boo ma nee 9h. danaa fexe ba 9h fekk ma incha allah. parce que boo nekkee xale da nga li ngay def da nga ko war a valoriser fonk ko ndax fii kenn moomul kenn tey jii ñëw bu ma leen ñëwal fii tey su ma yokkul dama wàññi kon borom moo ko gën a bëgg yàlla na yàlla defal jàmm ah ak sama papa ji béy di suñu caméraman bi ah yow école boo dem am na directeur waaye caméraman yi ci réew mi yaay seen directeur yàlla defal leen jàmm yokk garaat yi ba Sénégal ñu koy dégg partout dans le monde voilà